rattax moo fa amoon waaye nag jamono ji nga xam ne Serigne Bara Sène ñëw na fa kàddu yi nga xam ne moom la fa yëkkati jamono ji nag andi na fa ak pëccëxoo koo xamante ni la mu jur mooy ab jàppante ndax fan yi nga xam ne moom la génn askanu jooy def nañu ab assemblée générale amal nañu li nga xam ne mooy ab marche yéene kaay gi ne na jamono ji musiba ga ma ngay gën di wule ñaaye ndax am na kenn koo xam ne ñàkk na bakkanam si jàppante yi nga xam ne moo doxoon diggante askan wi nga xam ne ñooy yeewoo sa jooy ne ak taalibey Serigne Bara Sène yi gi de la Soleil nee na Serigne Bara Sène moome nag doomu Serigne Digal Sène la te na wala arrêté na bépp projet boo xam ne doomam jojee bëggoon na ko sa jooyee na a kaay gi ne na maanaam dëkkin bu rafet bu baax boo xamante ni bu am jàmm ak salaam moom la askan wi nga xam ne ñooy yewoo jooyi na maanaam moom lañ doon dund waaye nag la nga xam ne moom lañ fa nemmeeku ba fa sëriñ Bara Sène ñëwee la fa musiba ma ba kumba commencé dugg ci réew ma yéen a kaay gi de la Quotidien nee na jamono ji nag mën nañoo wax ne ak dal ma nga say am ndax sëriñ Bara Sène soo mooy tuule nag ci ab exil la jëm yéen a kaay gi de libération xëy fi nga xam ne mooy ndeng leera foofee tamit yëngu na xamante ne ñooy agent ñi yor wàllum sécurité maanaam om d'affaires bii di Babacar Ngom bu Sedima ak askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ndeng leer ñoo doon amal ay jàppante ci lu jëm ci wàllum suuf ba léegi maanaam sagar ma ngay xeeñ yéene kaay gi délibération nee na am na benn agent sécurité bu Babacar Ngom maanaam ab barre de fer la jël dóor ko benn xale bu góor boo xam ne Ibrahima Sène la tudd bopp bi te ñu daal di koy jël évacuer ko daal di koy rawale journal bi nee na musiba ma ba kumba gu rëy bay boo ñu xaar ko fi nga xam ne maanaam mooy ndeng leer Ablaye Jonn nee na nag bëgg mbir mi leer amul benn yoon boo xam ne ñoo waa ndeng leer daal danañu bàyyee Babacar Ngom li nga xam ne maanaam mooy seen suuf yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na foofee nga xamante ni mooy ndeng leer am na juróomi nit ñoo xam ne am nañu fa ay gaañu-gaañu ñaari nit ñoo xam ne nag maanaam seeni gaañu-gaañu jamono ji jéggi na dayoo yéen kaay gi di l'observateur xëy na ci njiitu réew mi di président Macky Sall ak kaddu yi nga xam ne moom lay faral di yëkkatee ay kaddu yoo xam ne su yëkkatee ay kaddu rek maanaam wax aw toj penc Macky Sall girawaleeka njombe yi nga xamante ni ma ngi koy def ci communication bi la yéen kaay gi di l'observateur xëy fa Sidiya Ndiaye bu ànd gësama yàkk na musiba ak mbelengana ki nga xam ne mooy Macky Sall moom Sidiya Ndiaye nee na moo fi taxaw di wax ne li nga xam ne mooy retraite bi bëgg yóbbu ba 65 ans te nag wax ji nag bu ñu ko waxee mooy ñi wër Macky Sall ay màggati ki pa ay vétéran maanaam ñoo fa nekk Macky Sall bi nga xamante ni wax na loole nag ab discours politique la ndax jamono ji xam na ne xale dañu ko mere moo tax Macky bëgg a njaay ceeke di naxtaan ñi nga xam ne ni ñoo ko fay gis ay paa yu màggata màggata màggata ba xubu daas la gis ci ñi nga xam ne ñoo wër Macky Sall yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak Dakar Times xëy dañu xibaar naan ñu taskado xabaar yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal ci gox yu bare bare yu wuute yu fasantikoo doon nañu amal ni ki démb ay toogaanu ñaxtu ci ministère bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum communication ni ki démb journaliste yi jàmban nañu jafe-jafe yi nga xam ne maanaam moom la ñuy dund ci métier bi ak gi nga xam ne maanaam moo ci am ak menace yi nga moom lañ leen di def ak nag fitna ji nga xam ne moom lañ leen di xam maanaam moo am ci biir entreprise presse yi maanaam toroxtaange gi nga xam ne moom la journaliste di dund loolee lépp nag taskatu xabaar yi ni ki démb daan nañu koy wax ñi nga xam ne ñooy waa SYNPICS jamono ji nag loi bi nga xam ne moom la ñuy sàkko maanaam accès à l'information yi ne kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu ci Sénégal bëri ci ay gox yoo xam ne amul personnel médical yi ne kaay gi nee na fu ci mel ni Kolda Tamba Diourbel Omar Dia nga xam ne mooy directeur des établissements publics de santé daan na xëy wax ne Sénégal amul ay moyens maanaam gi yëpp ay médecin yéen a kaay gi de la turbina xëy duñu xibaar naan ñu am na benn enquête boo xam ne def nañu ko si jigéen ñi nga xam ne maanaam ñooy jaay seen bopp journal bi nee na téeméer boo jëla ñeen fukk ya ak ñaara ci jigéen ñi jaay seen bopp yëpp jàng nañu ba am ay diplôme professionnel yéen a kaay gi nee na am na si xale jigéen yoo xam ne nee nañu jàng nañ ba yor seen i diplôme ñii nag am nañu licence ñii nag am nañu master nee nañu bi ñu jàngee ba am seen i diplôme dañoo wër liggéey ba maara détail yi gisuñu liggéey moo tax ñu wëlbatiku nag di jaay seen bopp ngir ñàkk pexe am na beneen xale bu jigéen boo xam ne ñaar fukki at ak ak juróom-ñaar la am kookee licence 3 la am ci lu jëm ci wàllum transport ak logistique nee nag maanaam jamono ji sax bu demee bay tëdd ak góor maanaam dafay mujjee rus lool ndax day xam ne jàng na ba jàng jotee wër na liggéey ba wër liggéey jotee waaye nag amul liggéey yéen kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu Sénégal jamono ji war nañoo ndëppal réew mi ndax saa sunu xëyee dégg fa musiba ma bokkumba dafa am benn vigile boo xam ne moo violé benn femme mariée maanaam mu ne dong di ko chantage yéen kaay gi de esat xëy